Boubacar Sadio maa ngi lay nuyu. waaw euh, aw maa ngi lay fay. alors ngay commissaire divisionnaire bu nekk euh, à la retraite donc euh, ki nga xamante ne mooy Mame Seydou nduur moom nag mooy directeur général bu bees bu police nationale fi mu toll nii nag jotoon na am loo xamante ne àdduna ko jëm rek ci ni ñuy fexe ba jubóole askan wi waaye tamit ak police nationale ban jàngat nga ci am. waa li ma laaj nii nag day déclaration boo xam ne. def ko def ci jamono bi muy def li ñuy wax ordre du jour maanaam bu la falee bees da ngay def benn discours boo xam ne da ngay wax fi nga xam ne foofa nga jëm li nga nar li nga nas ak li nga nam a def donc ci wàll googu nag la wax ni effectivement dina def kemtulaay kattanam pour que population bi ak euh, force de défense et de sécurité yi et principalement euh, gendarmerie ak euh, police nest pas nga xam ne ñoom ñoo yore sécurité intérieure bi vraiment nu ñuy juboo daal waaw te vraiment man ma bokk ci ñi nga xam ni loolu dafa mës a nekk sama xeex waaw balaa régime bu bees bi di ñëw sax doon naa wax ni effectivement que euh, nguur gu bees bi ñëw li nga xam ne moom la war a faratal mooy fexe daal ba citoyen yi population bi ak police gendarmerie muy force de sécurité vraiment nu ñu nu ñu juboo daal parce que euh, dañuy nangu ni Euh, seen diggante bi dafa ñagas waaw ñagas na ñagas boo xam ne kenn mënu ko werante waaw am na loo xam ne daal jaar na si diggante bi te lu ko waral du càggee ni sax bon dañuy fàttali li nga xam ne moo weesu waaye nag baax na aussi euh, ñuy wax loolu fu mu jógee mooy ñetti at yi passé quand na ñu nañu police ak gendarmerie ci maintien de l'ordre vraiment léegi-léegi ñu am comportement boo xam ne li tubaab di wax usage excessif de la violence de la force maanaam doole bi ñu leen dénk ak sañ bi ñu leen dénk vraiment ñu jëriñu ko façon boo xam ne dafa xaw ëpp daal donc mu indi vraiment euh, diggante boo xam ne diggante bu ñagas la dem na sax léegi-léegi sax da mel ni mbañeel moo nekk seen diggante bi donc loolu directeur général bu bees bi xam na ko euh, natt na ko euh, yëg na ko parce que quand même si responsable hiérarchique bu police bi la bokkoon donc léegi nag mu farlu ci loolu mais vraiment it foog que diggante boobu ñu def ba nga xam ne dafay normalaat daal diggante population yi ak euh, nu mu tuddati force de sécurité yi quoi te ma d'accord ci loolu. <laughs> alors nga foog ni euh, climat de confiance nag dina mën a am ginnaaw euh, li fi xew yépp. waaw dina mën a am c'est-à-dire que jubale bi moom dina du yomb ah dina nekk loo xam ne dina mën a nekk sax quoi waaye nag bu boobaa aussi dafay laaj daal ñi nga xam ne surtout ñoom ñoo yore kaaraange bi. vraiment ñu am sañ-sañ ñu takk seen fit ñeme ci li nga xam ne fa la ñu bëgg a jëm ba nga xam ne yenn décisions yi dañ koy jël daal bañ ci yoxe yoxe quoi parce que en fait ñoom ñoo war a jël initiative bi parce que euh, jaamaarloo bi yàgg na bëri na ñàkk déggoo bi euh, yàgg na bëri na diggante population yi ak force de défense et de sécurité yi Euh, surtout ni ma ko waxee entre police gendarmerie ak euh, population yi donc fi mu toll fii il faut que ñu jubalewaat leen euh, il faut que ñu fexaat ñu fexe ba nga xam ne ñoom ñaar ñëpp dinañ xam ne ñoo bokk réew mi donc am na loo xam ne il faut ñu ànd def ko pour que ñu mën a liggéey réew mi ci dal ci li nga xam ne vraiment moom la ñëpp yaakaar daal surtout population bi quoi donc comme ni ma ko waxee. Mm-hmm. il faut que police ak gendarmerie ñu xalaatal bu baax ñu seet léegi ay stratégie maanaam ay pexe. ak ay nekkin yoo xam ne ak doxalin yoo xam ne vraiment dafay tax léegi population bi mën a jege si pour euh, policiers yi ak gendarme bi ñoom aussi ñu mën di wax facilement ak ñoom donc communication bi aussi dinañ si am importance parce que ñoom police ak gendarmerie population bi la ñuy liggéeyal donc population bi il faut que ñoom aussi ñuy expliquer population bi su suñu liggéey bi lii la ak lii la ak lii la gannaaw population bi la ñuy liggéeyal aussi ñoom aussi population bi war nañu xam ci yenn fànn la policier yi di liggéey pour que compréhension mën a am ci biir quoi. Mm-hmm. donc euh, wax dëgg yàlla liggéey la boo xam ne liggéey bu bu bu am solo la te te ni ma ko yaakaare il faut que li tubaab di wax proximité maanaam. xaw ma nu ma koy <laughs> traduire ci ci français mooy jegeyoo ah diggante ñaari kulo yi mm-hmm. waaw pour que mu mën a am mm-hmm. boo xam nga fii nag police ak gendarmerie yàgg nañu def li ñuy wax police de proximité mais loolu méthode la ak technique boo xam ne ñoom it neen nak la affaire policier la affaire gendarmerie la n'est-ce pas mm-hmm. mais euh, am na beneen façon proximité boobu boobu xawuñu ko farata trop moom la ñuy wax proximité boo xam ne euh, institutionnelle la maanaam xam nga proximité géographique mooy da ngay tabax fi brigade gendarmerie tabax fi ay commissariat tabax fi ay post police pour ñu jege effectivement population bi loolu baax na waaye nag loolu boo ko defee ba pare da nga a def benn politique boo xam ne ñooñu nga yóbbu foofu muy ñi nekk post poste ba ñi si ci gendarmerie ba ñi nekk ci brigade ba di fa liggéeyee di liggéeyee askan bi ñu mën léegi effectivement di toog di waxtaan ak askan bi askan bi dana wax lan la ñu soxla ñoom aussi ñuy weccatu xalaat ci le faut sax ñuy organiser léegi léegi bu dee weer bu nekk la bu dee ñaari weer yu nekk la effectivement euh, nu mu tuddee ci seen jàmmaarloo ci waxtaan ñuy échanger xalaat et cetera. Hmm. waaw proximité boobu nag moo xaw a manqué nag loolu nag il faut que police nag ak gendarmerie gën ko yokk gën ko faraatal je crois que buñ ko defee rek bon dina am loo xam ne dina ratax rataxal diggante bi quoi diggante population ak euh, ak police ak gendarmerie. alors arrestation yi euh, daanaka bari woon na ba ci ñun ñi taskatu yi Euh, dina jafe loolu nag euh, jubóole gi. waaw waaw du du ko arrestation bëri na comme ni ma ko waxee. de hmm. loo xam ne effectivement weesu na parce que dugg nañu ci benn ère bu bees. maanaam si benn jamono bu bees li nga xam ni moo xewoon vraiment si taw Macky Sall gëmuma ne mu mu mu mu xew parce que nit ñi loolu la doon xeex ba nga xam ni vraiment Macky jóge na fii donc fi mu toll fii wax nga ni arrestation yi bëri na ëppoon na sax wax ma dafa bëri mais dafa ëppoon. Hmm. parce que ñu xool njaay rek ñu jàpp la n'est-ce pas bu ñu gisee photo Ousmane Sonko si sa portable nga tàkk bracelet sax ñu jàpp la waa ni dee ñëw sa boole la fekk xëy na dafa la mere n'est-ce pas ñu ñu ñu ñu jàpp la donc dafa jéggi woon deeyoo arrestation yi. Hmm. nee nga nag journaliste yi ci la ñu bokkoon waaw effectivement loolu nangu naa ko. bon moo tax aussi journaliste yi xam nga mbir bu amee il faut ngeen def jàngat comme ni ma la ko waxee léegi si nasaraan gis nga bi affaire gilets jaunes yi amee France ba nga xam ne dafa tànk jër et cetera ah, nga xam ne manifestation yi xew France mooy ëpp foofu dégâts yi nga xam ne moo xew fii mais euh, ñi nga xam ne ñoo yore karange bi dañoo toog waxtaan seet li nga xam ni moom la ñu war a euh, jàngat bi ñu war a def. Hmm. bon na nañu ne ah am na façon xeetu grenade boo xam ne gis nañu ko buñ ko utiliser dafay lor askan bi ñu ne ah kon léegi loolu nañ ko bàyyi n'est-ce hmm. ñu toog aussi euh, policiers yi am tactique boo xam ne ñu ngi koy wax la naas maanaam mbaal. waaw dañuy mbaal ay ay manifestants ba ñu xam ni du am fu ñu demee mais bi ñu demee ci conseil d'état maanaam ci ëttu àttekat bi kooku def leen ne seen mbaal boobu baaxul. waaw mun ngeen ko def waaye il faut ngeen jox porox ndool ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñu mën di dox di dem xam nga loolu mooy liberté d'aller et de venir. Mm-hmm. ñetteel bi bon euh, ñu ne léegi journalistes yi kenn mënu leen tere ñu def seen liggéey. waaw ñu nekk fi di la ne il faut les chasser il faut les gazer il faut jeter des des des grenades ci ñoom déedéet seen liggéey lañu def c'est seen liggéey boobu wareef la ci ñoom waaw parce que liggéey bi daal la mooy dañuy jox askan bi information donc war na leen faciliter yombale leen seen liggéey ba nga xam ne dañuy taataan information yu nekk mm-hmm. n'est-ce pas ba pare jox ko askan bi quoi donc fii malheureusement fii malheureusement nag euh, journaliste bu rombee sax léegi léegi ñu lay saaga di la gëdd di te loolu sax journaliste nit ku ñu lañ koy def de mais bu de journaliste tubaab la da ngay gis dañuy dañuy ndaxanteeg moom dañuy maslaa moom et ko quoi. voilà mm-hmm. donc vraiment am na loo xam ne effectivement il faut que ñu jooyante ko daal. ci loolu yi sax euh, ana lan moo war a nekk euh, rôle police. waaw comme ni ma ko waxee rôle police mooy ñu defaat stratégie yu bees ñu xalaatal bu baax a baax te xam naa ne sax xalaat nañoo bon euh, ñoom ñoom ñi nekk si biir xalaat nu ñu ñu nekk si biti xalaat nañu mun naa am sax xëy na suñu xalaat du leen soxalu leen n'est-ce pas bon parce que dañuy jàpp ni xëy na ñun bokkatuñu et cetera mais ba léegi ñun fi mu toll fi ñu ngi xalaat bu baax a baax parce que askan bi moo ñu tax a jóg donc rôle police mooy ñu teg stratégie n'est-ce ay pexe n'est-ce pas ay doxalin yoo xam ne effectivement dina tax léegi population bi vraiment ñeme leen waaw parce que euh, ñoom ñoo war a def le premier pas xam nga pour jafe na pour civil civil muy dem di policier di di di di wax ak moom policier bi moo war a yaatal dënnam moo war a ubbi xolam n'est-ce pas moo war a yaatal police commissariat bi ba nga xam ne et puis moo war a di teeru citoyen bi façon euh, teeru boo xam ne nit ki da koy ñemee da koy mën a dénk boppam da ko di ko mën a euh, dimbali pour ne ah mbir sangam xew na fi ah xaaral ma baax xelante information waaye na fekk policiers yi boo ñëwee commissariat ba euh, dañ lay gëdd boo leen nuyoo duñ la faale et yu mel noonu. day tax nit aussi jàpp sa jàmbur parce que aussi ku nekk nag da nga am sa ngóor ak sa dignité am na loo xam ne buñ la ko wonee aussi doo sa war jàppale nit ki donc police ñoo war a góorgóorlu léegi ñu fexe ñu changé ba nga xam ne dañuy am ay policiers yu bees. Mhm. moom yaakaar naa ko ak directeur général. état bi parce que moom ci boppam noonu la jikkoo koo xam ne la dafa fonk doomu am aadama la moom koo xam ne dafa respecté doomu aadama kooku moom ñëpp ko seddal si biir police bi je crois que jikko boobu bu ko jëlee mu lawal ko si policier yëpp ah je crois que yëf yi mhm. fi mu toll nii nag teel na ci wax bilan ndax ñaari weer wala sax euh, tollu ci ñaari weer ñu nekk ci bopp réew mi waaye ana nan nga gisee rek euh, démarche su régime bu bees bi. waaw démarche régime bu bees vraiment maa ngi koy rafetlu xam nga yëf yi affaire bi euh, nga jéggal ma mais affaire naar fekk la n'est-ce pas koo xam ne dañ ko fal juróomi at juróomi at mooy juróom benn fukki weer lañ ko fal yow ñaari weer yi sax motagul nga bëgg commencé ne da ngay sukkandiku ci loo xam ne ay fla fla la pour ni da koy critiquer c'est-à-dire que ñooñu di teel a critiquer nii du dara c'est que ñoo xam ne danoo bañoon Ousmane sonk ak Diomaye Faye jëmb ñoom ñooy continuer rek seen xol yi bañ a bañ bañ a mën leen supporter mais gouvernement bi wax dëgg yàlla ñaari weer yi def na loo xam ne vraiment lu lu lu mucc ayib la waaw gis nga ni nga xam ne doxale ko ak euh, béykat yi engrais bi nga xam ni wàññi na ko jële ko presque si ay vingt deux mille francs yóbbu ko si ay treize mille francs ripaas bi nga xam ne aussi wàññi na ko bon am engrais boo xam ne aussi daf leen ko may waaw au lieu mu jaay leen ko ensuite mu organiser euh, séddalin bi ci engrais bi façon boo xam ne amatul njuuj njaaj amatul intermédiaire amul du jox tonne bi sëriñ si bon moom ñu koy jël ñoom aussi di ko jaayaat wala di ko jox ay politiciens léegi engrais bi dañ koy séddale mu dem directement ci béykat yi donc yu mel noonu ak ay bor yoo xam ne fay nañ ko gis ngeen ne administration bi léegi ñu ne huit heures ku xëyul rek bu boobaa dinga ko digaale ak sa gis nga xam nga Dakar ay neuf heures huit heures yooyu da ngay doon gis dafay bëri embouteillage mais heure yi du bëri embouteillage parce que huit heures dafay fekk seen bureau gis nga aussi set setal bi nga xam ne euh, organiser nañ ko acte citoyen def nañ ci yu bëre yu bëre yoo xam ne vraiment am nañ ci yaakaar quoi mm-hmm. donc vraiment encore une fois ne leen population bi jàppale ah ñu ñi daal euh, démb jàppale nañ leen bokk nañ ci xeex bi kooku kenn mënu ko wérante euh, ñu ngi continuer di leen jàppale di leen gunge di leen accompagner parce que ñoom bu ñu réussir rek Sénégal moo réussir donc vraiment loolu la am <laughs> lu ma ciy wax daal. très bien Boubacar Sadio jërëjëf may fàttali rek ne commissaire divisionnaire nga bu nekk à la mm. retraite ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax.